jéggalu mu baal ci la ngëneel yi ci la xewal yi yokkoo ramadan ya karim ramadan ya habib ya habib ramadan bàyyi na dem bàyyi na dem alhamdulilahi rabbil alamina jabaay na dem Lamine jabaay na dem bu mu ñëwati na accident yàlla na dee yàlla na soge bu gaañoo ban rob ko mu gaañuwaat ci biir armée reyaat ko mu amaat bameel ci biir bàmmeel yi Lamine na dee Lamine jabaay na dem bu mu dañuy jabaay koor gii di waaj ñëw nga xam ni mu bëgg maa yàqal sama liggéey ah waay waay waay waay waay waay ah fii laa koy dalloo fii laa koy dalloo waaye Sénégal wayatul bu njëkk ay yu neex amoon way wow nag moom. kooko naan bàyyi ma yor a sàmb yor ka sa sambay kooko jël la mu jël am samba jox ma saa su bala saa yaayee ñëw ah way <laughs> waaye kooku mën naa way de ah ah waay waay nekk di naan banana pom woo pom hooy hooy xamuñu tus xamuñu dara dara xamuñu de la ñuy def ci àll salaamaaleykum wax moom day nelaw de yoo salaamaaleykum moom moom sama nijaay buy nelaw comme ku dee rek waaye xaa xaa nelaw ba am ba am sa jarbat ñëw yooye wala wal si wala yeewu man dama teel a ñëw nag xool gi des na lii suul lii bay ñëw waaye sa sama papa nee na ni si nelaw bu ko yee baal ma sëli fii rek si loolu baax si la doxaa na këriñ la yow ñu jëriñ këriñ ah da nga da nga distance la boo ñëwee dama tàggu sama ñëwee suma suma ma waxee ma waxee un deux trois rek maa ngi sa kaw de moom moom lay soxor nii kañ nga ñëw un deux trois ah, ah, yow yow yow yow yow maa ngi naan da nga gént ma lay yee yow yow ana madame yow yow yow yow yow maa nga ngay ñëw di tëdd di ma la woon nga yaa a ni yaa yow wala ngaa wala ngaa seetaan sa a na da nga nungu yow lii la la xaw ma si dara du ma toog te la ngay cox yow da wala sa tox bi bañ nga ñëw sama kër a gan laa amoon léegi doon diri fexe naa bu mu ñibbi jabaay yow ma dem àggagul nga ñëw yow jabaay sax la gën waaye ma sama jaw nga yow yow xam nga dama walaa wali ah. ma dem ma dem Felestol ma dugg fa ma téléchargé nijaay wax nañ ma ko eh Felestol boo fa duggee boo bëggee nijaay da ngeen fen rek fen rek ngeen fi nekk nijaay nu nga téléchargé waaye léegi dama lu beneen nijaay ah ah. yaa yaa wax yaa wax moom moom di waaye nijaay. jeex na galaawul. yàq dinaa fa dem télé saate nijaay bu lafet bu xees. boo xamante ne gémmiñ gi gémmiñ gi ndaw lay yor yow ku lay foto da ngaa war wax fom ndax sa gémmiñ gi xa a wàññeeku waaye yow. si si. waaw sama salaam. ah ah soxna Marème. wuuu de. ak jàmm sant ni rek. Eh, yow yow yow boo yegsee di di nuyoo yow dama nuyu yow. nuyu ma la. waaw waaw yow yaa yaa yaa ngi ñëw nuyu nuyu a nuyu yow a dama laa nuyut loolu nga a dégg nuyu ma eh, ki xa xa xanaa waxoo ma la ma la kan waxoo waxoo ma la ñaaka fulamaale la golden boy Félix Kaale. Hmm, waaw. waaw. booy luube ma lay ñus. fan la toj eh. maa toj Mbacke Bawol. waaw hmm. sama jàmm yow xam nga ma. xam nga xam xam nga xam xam nga xam nga bi man yéen yàlla yéen fii eh, yow yow da ngaa leew da lege. waaw sa talmat gàddu yu baax yi. muy li a jaayafale moolaa yi di jéem a mool. day léeg-léeg mënu ko mu génne kër gi. waaye yow te yow sax eh, jugal nga def ma xool ba xam. sa talmat gàddu su baaxee. damaa jugut lu sayoon jëm juguma. su baaxee ma bàyyi la nga toog su baaxul nga eh, amal na kër gi juguma. ba ko kay. ni yaay yow yow xam xam xam nga ma de. wax wax mu jóg na gaaw ah. eh kër gi man maa fi waga sa dënd boobu nga dund ak dënd Pikson waxuma ak yow eh yow laay waxal ah, waxuma ak ah, yow damay mooy nit ku baax Pikson du mooy mooy loolu di di matate mu naan ma fi boo ko waxaa dégg nga leew xam nga eh moo waxaa da ngaa réew de maa dafa ñu mat xaa kii xanaa xamuma eh na jóg léegi waaw léegi jeex na loolu wala wala ngay ni yaay wax a wérut wérut wax naa la ka jool ma xoso talmat gar wala nga amal ma kër eh jool juguma xam nga taaju naa daf ma sala way mbaje jool jool wax a jóg waaw dina jóg da nga def nag fer pele fer pele jool gaaw moo xam sa pointil boo xam yow ban silib ngay sol mu na gaaw eh, eh ay ay waay waay waay waay yow nag da osé nga yow waxuma ak yow sax eh ah, ah, ah. man maa ngi ñibbi ma eh, ñibbi dama dem tey yow sa kanam mu njàng yeeg sa lii nga def sa bopp mos. Eh, xalaatuma ko xalaatuma ko mooy lomb si biir kër gi fii nii di dem nga koy def ci biir yëpp saa saa loolu du ma ko def. Eh. wéeroon na naka njëkk man nag wéeroon. Eh, xam nga xamalala xamalala yow xanaa ah, su ma ma bàyyi la si biir kër gi may ma sama jàmm jiwal ma xool sa poyentil xool sa sonn bat gàddu xool ban poyentil hmm. slip ngay sol. man maa ko def sax gis nga yow boo may woo damay fekk ñu waaye di ñàkk fayda yi. ba léegi ma woote dégg nga lu leer laa lay wax. Eh! dégg nga foofu soo léegi xoolal bu jeex boobu. waaw waaw xool xool ko kii protocole ñanam bi baax na de. ñëw yaa sama ni yaay yow dala de wuy talmat gàdd yi xool ko. woo woo wooy fii daay jax yi laaw yoo ni yaay bi mool la de xam xam fal goowu naal. xam fal goowu naal yow ab dox nga rek. yow ma ay def yow yenoon yow caa nga yow yow yow su ma demee yow daf d'accord def naa waaye caa la. yow yow kii seetu la man lay seet xamul lu ñu waxante ba mu ñëw fii. waaw yow lan ngay waxante yow yaa ngi yaa ngi wax naa ay dama ko def ni yow caa la yow yow ni yaay ni yaay ni bay ni mag day responsable yow sa sikkim bii mel ne mbomb mag day responsable tey da ngaa war a takki jabal su fekkee da ngaa sonn da ngay dem takki jabal ngay nga. réew eh, eh, la eh, yaa ngi bëgg réew de. ka mooy leew yow. yow yaay yow mii yaay leew yow yow nijaay yow xam nga man laagaluma la. billaahi man ak yow ci kër gi

yow doon ñëw nday ci kër gi bëgg maa man sa yaay ñoo bokk ndey ak baay. yi la rob yi la topp man man la gën a topp foofu. loolu nga yaakaar rek hmm? man na yaay veut devenir au grand waga yoo ma sax. ah waga nga waaw man bandi bu bandi laa booy. waaye bandi a weesu. dafa doon ñemee yow. da ngay sari sari la man ak yow ci kër gi man ak yow na fay. xoolal man ak yow ci kër gi. Hmm. Hmm, mooy ma ma yeggee si kër gi yow xam ma loolu. wa wa wan ma sama néeg rek ma dem. dugal néeg bu la neex jëlal sa temps rek yow ba ma pare fa fa fa laay jël sama temps. Eh, wàccu lii waay. waaw nit yi yow la moo tax nga leew. boo paree nga fol ñaal yëpp nga fot ko. Oh. sa sa biir la sa biir nekk laa jëm. sa doole sëlee quoi sa doole sëlee sa doole sëlee kay. kii cagala rek. sa ngay ngay wala takki jabar xam nga ne sax yow. sa doole sëlee quoi. ay dimbali ñu ki lay ki lay luyal naka bàyyi ba luyalu taat takki li jabar ni yaay. waaye yow mooy sama waay yow ngay mel ni kii moom kii di billahi ko koor gi fekkee ci kër gi man xaw ma fu ma jëm lii mënut a ànd ak woor waay waay waay man dama woor de kii bu fekkee koor gi da ko fi fekk dama woor de loolu moom mënu ma moom woor di dëkk ko dof moom doonu jakartaa ma ko gënal ñu teg ci man ñaari biir yànk di daw ci man ci naaju tàng gër nag di maas doo daan waaye lii mënu ma ko waay dof ak ko koor ah wax suba wax ngoon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 Ramadan ma ëmb leen moo gën ci weer yow na nga matal julli juróom yaatalal sa xol sàkku yërmande ngela waay bu ci mooy yàlla tuubal jégalul dalul ci yàlla lu mën ci lu baax ci tay mengoog safaan ba nanga ko baay